aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala sayidina mawlana muhammadin salallahu taala alayhi wa mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi noo am mbégte di jàkkaarloog yéen fii ci kër sëriñ Abdou Samad Mbàkke ibnu sëriñ Chouaïbou di waaj bis bu mag bi nga xam ne benn la ci bis yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan am na ci bis yi bis yoo xam ne sunu borom day wàcc ay yërmandeem ci kaw suuf kon nag na ngeen ci gaaw profité ci bis yooyu ngir am ci lu baax muy bis bu màgg boo xam ne bisub kenn la ci ndam yi nga xam ne lislaam da koo am ci kër ci Sëriñ Tuba muy bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku Sëriñ Cheikh Souhaïbou Mbacké mu doonoon juróomi fan ci weeru koor muy koo xam ne da ngay wax ne rek léppam alxuraan la waaye léppam weeru koor la ndax ci la feeñ jamono ci la wuy ji boroomam te li nekkoon ab liggéeyam ci kaw suufin mooy jàngale téereb sunu borom bi nga xam ne moom la wàccee ci weer wii ñu ci ndokkeel nag ki nga xam ne mooy kilifa yoon wi di Cheikh Mahamadul Muntaqa di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ndokkeelit ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne bu Mbacké muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke ak ñi mu bokkal Serigne Souhaïbou bu yëpp nuy am mbégte yi toog fii ci kanamu sunuy kilifa di Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Souhaïbou bu ak rakkam Cheikh Mouhamadul Bachir moom Serigne Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yor kàddu gi yoon wi ñu fas yéene koo ubbil kàddu gi rek mu sànni ay kàddu ci way juróom nga xam ne manees na mooy way juróom ci aada waaye it manees na ne mooy way juróom ci ruux mooy li li tubaab naan père spirituel manees na koo tuddee kon kooku ñu fa yéene rek taatan mu dolli ñu ci loo xam ne war nañ koo mën a roy war nañ koo mën a jàng ci jëmmi Serigne Souhaïbou moomu nga xam ne ni ma ko waxee woon rek ne léppam alxuraan la waaye léppam it weer wii la ci la feeñ jamono ci la wuy ji boromam te li nekkoon ab liggéeyam ci kaw suufit mooy jàngale téere bi yàlla bi nga xam ne mi ngi ko wàccee ci weer wi kon loolu rek lañuy ñuy daal di tàmbalee su ko defee ñu jox kàddu gi sunu sëriñ sunu kilifa Cheikh Mahamadul Bachir mu dolli ñu ci jàmbaari sëriñ Touba kon sëriñ bi bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yi bokk taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp ci weeru tedd yi di weeru koor di siyaare yëpp ci ëtt bu tedd bi di ëttub Serigne Touba di ëttub Serigne Souhaïbou waaye di ëttub Serigne Abdou Samad Mbacké mu Serigne Souhaïbou kon sëriñ bi ñu ngi lay delloo ab nuyoo bu baax di di la siyaare tey jégalu toogaay bi. ngir xam ne ci sa baax ak sa woyof yaa ñu ko woyofalal ci sa ndigal ñu sañ ko def waaye kon ci suuf la ñu toog ndax mooy ni yoon yu baax doxe waaye eh, sedd sama digge yooyu ni mu demee nga xam ne day mel du ñaari jëmm jenn jëmm la xam naa moo tax mu di wax la waaye kon nag te taxut muy loo xam ne lu war la kon ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax di la sant di la gërëm di nuyu mboolem njabootu Serigne Souhaïbou gépp te bu ñu tuddee Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mi kilifa gi mën a yóbbaale ñëpp eh, di ñëw lu gàtt gàtt rek ndax eh, suñu doom yi nga xam ne ñooy bëgg a wax ci sëriñ Serigne Souhaïbou bind ci téere gëstu ji xam naa danañ ci mën a wax lu bari waaye ñu ne fàttaliku ci tuuti rek ndax ni ko sëriñ Djily mi waxee léegi. mooy duñ dund ak jëmmam ju tedd jooju nga xam ne kooku xam ku ne la doon doon gone boobu dangay gis jeexeeti Serigne Touba ci moom di gis xeetu Serigne Touba ci moom ci lépp nag ci ni kër gi bindoo ndax ku gis këram ni mu bindoo rek boo fa duggee dalee fàttali këru njaarim ga ndax kër goo xam ne mën na ñaar téeméeri mètre daanaka ci wet gu ne kees yu bari ak lépp na bindoo ni mu daa toogee foo ko fekk mu jublu xibla di dundal sunna rasulullahi sallallahu alayhi waaye foo gisee jëmmam nag sax dem ci Serigne Touba ba ci xar kanam bi muuraay bi lépp di ko bëgg Serigne Touba nag Serigne Souhaïbou da ngay dégg ñuy wax naan diw euh, sarixam ak xam boo ko doon màndaxe ci balaas dañuy dëppoo waaye kooku mooy jëmi sëriñ bu bi moo ko jëmal mm-hmm. ndax boo jàngee ab téereem ay mbindam gis ni muy segg lislaam ni bëgg ñëpp tënku ci ba taral ba day mel ne ku ko taral sax mel ne koo xam ne boo koy seet ma yëwu dara ci jullit bi jàdd ko ci li sariya santaane te loolu mooy loo xam ne itam waxu ko yem ci waaye da ko daa dund ndax loolu la koy firndeel loo xam ne lu weesu mille neuf cent quarante cinq daanaka ba quatre vingt onze génn Tuubaa génnut këram te la ko waral mooy di yar eh, doomi jullit yi rawatina njabootu Serigne Touba gi ak taalibe Serigne Touba ngir xam ne bokk na ci ndénkaande yi Serigne Touba mujj santaane mooy nañ jàngal ndaw ñi te toqi leen te yar leen mu liggéey ci liggéey bu rëy rëy liggéey boo xam ne képp koo xam dund nga ci keppaaram day dana jeexital jëw ndax moom mm, li ngeen di tuddee léegi euh, système éducatif ci wàllu jàng Serigne Souhaïbou dafa nekkoon li ñuy wax kaana ummatan umma buñ koy wax mooy aw aw xeet inna Ibrahima kaana ummatan waaye Serigne Souhaïbou day mel ne jëmm lu jox ne taxawaay na taxawaayu aw xeet moo tax mu taxawal ay génération yu bari yoo xam ne ba nëgë ni waxuma ñam yaraloon boppam waaye ñam yaroon kuñ yaraat ku ne jeexee jëm ngi des ci yow tey bokk na ci ni mu yore yi mu yore woon daara ñun ñëpp daanañ yeew lu mat waxtu fajar door a jot nga xam ne ci loolu lañ judd boo sa juróom-ñetti tam da nga jàng lu mat waxtu fajar door a jot boo sëlmalee fajar doo tëddiwaat da ngay continuer ci njàng ma te amutoon noppalu mm-hmm. waaye daara amutoon génn bu yor gàmmu weeru màggal masaan weesu ba weeru kooru di jeex mën ngaa bañ a génn génn génn kees gi te la Serigne tubaa daa santaane ci ñu yar ko ñu ci njaboot gi Serigne Son bi da ko jëmmal ndax Serigne Saliou daana wax ne euh, ginnaaw bu Serigne Touba ñibbisee Touba ci lañ gis ñoom njabootu Serigne Touba gi liggéeyloo gi ñu leen daa liggéeyloo ñu bàyyi ko. ñoo xam ne kon Sëñ Tuubaa ko santaane woon nga ne doom yi ci boppam sax muccuñu woon ci ñoo leen tàggat ci liggéey dem ci tool yi sëriñ son bi ñii noonu la ñu tàggate woon alxames bu masaan jot suñu ku bañoon ko def loxoy neen la ñun ñii daanañ ak njabootu Sëñ Tuubaa gi ñu nekkoon ak taalibe yi dawuñ ñu xàjjale daana bëgg ñu xàjjale ñu sax waaye ci yar bi ak nit ñu tege coon ñoo ko daa bokk dañ daan dañ daan ci biir keese di buub ci suñuy loxo daanañ ko def lépp lu ñu tàggati nit rek suñ bi dañu ko daa def noonu la yare woon daara ji looloo waral képp ku <coughs> génne ci jaaru kër suñu son bi adduna du la mën a jaaxal boo gisoon adduna sëpp ak li ci biiram itam fanaan ci néegum ñax ak fanaan ci étage mooyoom yem ci yow loolu ci yaru suñu son bi la. muy jëmm ju bëri yërmaane léegi laa ko wax Serigne Abdou Samad léegi ne ko sa yërmaane ji nga ji xam ci yow ndax loolu tam dama na dama koy seeral ndax nee naa ko nee naa ko li ma gis ci sa yërmaane bokk na ci nit ku mën a lugul dara muy gone gu tuut ngay sonn ci moom nga xam kenn séntu ci moom kenn xamul nooy mel ëllëg ngay sonn ci moom nit ku dem ba amatu njariñ nit ku ku amul njëriñ sax amul waaye koo xam ne dem nga ba màggat ba kenn séntatu ci yow dara ngay sonn ci moom nit ku dem ba faatu nga xam ne jébal borom ci des gis nga la muy dëcc moom bu ko fekkee ay barkeeram yu mu denceeram boobu su mën na ko génn joxe loolu yërmande féetewoo kaw waxtu ne itam nga gis muy sonn ci mbir moo xam ne amul ko njëriñ yërmande joojee nag da ko ci sëñ bi ndax loolu man mën naa seere ci moom ndax nit. bu fekkee am nga ñeent fukki at ak ñett wala ñeent ñeent ñeent fukki at ak ñeent wala juróom boo ci génnee juróom-benn at wala juróom-ñaar li ci lépp ngeen ànd ko seenu dund kon war ngaa mën a seere ci moom barki démb dafa am mm, koo xam ne ab sët la ñuy waxtaan fekk ay nit toog toog ñuy wax ci sama digg moom ci kër Cheikh Maodo moom taxa kooku ne kat moom solution Chambre boo ko yar moo kat moom. sëñ bi sama lañ njëkk xam ci suñu son bi kon suñu diggante noonu la demee ma ne ko ma ne ko nga dëgg de ndax bi ma njëkk si kër sëñ Buxaari booba ñëwaguma kër suñu son bi kon loolu lu yàgg la waaye sëriñ li ñuy wax géej la nag doo xam boo ci bëggee dugg doo xam fooy tàmbalee wàllu yërmande gi noonu mel noonu la lépp mel tabe ga sëriñ Sohabu te lu muy defit yàlla tax ñëpp ñu ko jege woon xam nañ ne mbaar bi daan toog ba xaaj guddi ñu duy ko ba mu fees ak dund mu yóor di ko seddale bu mu jeex yërmaane ji àggoon na ci picc yi sax da leen wutaloon ay mbalke ci biir dëkk biir kër ga ñu ci naar ngir yërmaane kon moom wet goo ko natt rek ak bëggam Sëriñ Tuubaa nag àgg na ci mustawa boo xam ne mëneesu ko melal boo xoolee ñun ñi nga xam ne ñun ñëpp fa lañ bàyyi ko juy fa ci moom ku ci ne moo la yar ci bëgg Sëriñ Tuubaa tàggat la ci danaa koy faral di nettali ba ma tàmbalee dégg muy nettali waxi Sëriñ Tuubaa ndax boo ko xamee ci biir kees gi waxtaanam wépp Sëriñ Tuubaa la kenn ko xam ci lu bëree bari nag ndax moom ab gëstoom du dégg du dégg rek. jàpp ñi ko xam wax nañ ne balaa jàpp benn nett li ci mag ña dana la ko laaj ba waxtu wa dellusiwaat mu laajaat la ko boo ci soppee benn baat loolu mu far ko xam ne warti déggee ci yow moo tax sëriñ Souhaïbou bi xistaam yépp bu koy nettali sax daga xam ne nii rek la wàcce woon ci sëñ bi bëgg sëriñ Tuubaa ba nga xam ne nag boo koy seet ci biir waxam day mujj mel sax daanukat la kon moom ñaari wetam yëpp te jàkka jàkkaam ji itam bu ko jiiteloo suñu ébi bu rek moo fa daa jiitee boppam te waxtu yëpp di fa la ko daa jullee te te sori woon na ndax ca kees yu mujjee jàkka ji nekk ci kees gu jëkk gi kon noonu la fonkoon lislaam wirdu maaxus mosu ko jëlal kon moom boo xool jëf yu baax yi alxuraan xasida loolu man fekke naa ko ba tey ndax am naa ci firnde sama kaamil bu njëkk ba ma koy bind téere bi nga xam ne moom la doon jàngee te Serigne Abdoul Ahad doom bind ko ci la daa génn ay xët ma jox ne ma naa ci roy ngir sama loxo nuroog moom kon moom danaa topp lépp daara ji li muy yaatu yaatu bala fee kenn bind kaamil bala ngaa tàmbalee bind kaamil danañ dajale dajale allo yi wan ko ko mu xool mbind yi ba xool xam ne kii mën naa bind mu door a tàmbale te bu noppee it moo koy xool topp ko te yàlla may ko ci it ni mënoon a digloo ci ñëw ko xam ci njàm ci ci ba muy jàngale noonu la amee jegle ci bu xoolee mbind day mel ne yàq yi mooy wane boppam kon sëriñ Soxay bu dal buñ doon buñ duggee ci waxtaan ci moom daanaka euh, dañuy dem ba sori sax ndax cofeel gi ñu xam ci moom ma am ci moom tawféex ndax bis bu ñu fa sëñ bu xaar mu njëkki andi ak sëriñ bi son sama mag ca bis ba li ñu nekk sëriñ bi xaar juróom-ñaari at juróom-ñetti at yëpp ba indi ci daara ji mosuñoo bokk moom sëriñ son bi daal njëkk a bokkal ci doomu Sëriñ Tuubaa ca guddi gee la ànd ak ñun doon siyaare si jumaa ji bàyyi ci biir oto bi dem siyaare jumaa yi dem ci armeel dëppaat kon tawfeex jooju nag lañu ñu yàlla defal ci moom man nag ma amaat ci sama xaasi bopp ndax ku ne xam na ne daara ja ko fu ma si nekk bu la sëñ bi gisee li muy njëkk def moom fetta su dellu ca daara ja waaye man nag yàlla defal na ma tawféex li ci ëpp ginnaaw takkusaan daanaa ñëw te sëñ bi it ba ma masaan agsi booba juróom-ñaar ak juróom-ñetti at lay am ba ni mu fi bàyyi ko nag yàlla def na musuma fàttaliku fu ma sëñ bi jànnee wala mu ma dara te loolu ñaare baaxoon na ku mu gis nga jugee ci daara ji mu jàpp ne da ngay taxawalu waaye taw feex jooju la amoon ci moom ci ak ci yoo xam ne daanaka lu ci bari mun moo ko nettali sax. laaj la ba xam yow. borom jotaay yi nga am ak moom bari na nag. fàttaliku naa bis. Cheikh Saliou Mbacke ñëw fa. naa ci nettali ñaar. Serigne Saliou ñëw ginaar takkusaan bi mu agsee. suñ Moustapha Xasida a ngi toog mm-hmm. suñ Abdoul Ahad Mbacké suñ Chouaib bi toog mm-hmm. ña ci des nag teewlu ma ko waaye ñaar fàttaliku naa ci jotaay ba mm-hmm. ak man ñi ne ñi newoon ci saal bu mag bi saal bi ñu daa tuddee saal bu Monterey bi Serigne Saliou accès Serigne Chouaib bu ne ko na xàmmee nga kii Serigne Saliou ne ko de mu ne kum lay <laughs> xool xool ba ci àgg Serigne Chouaib bi ne mën ngaa maa ngi fàttaliku ak takkusaan goo xam ne it ci mujj gi la boobu sëriñ son bi daa toog di xel di ataaya na suuti Ibra Kay yëglu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yónni ko boobu maa ngi toog Ibra Kay ñëw indi fa tap bu a mag tap boo xam boo ko tàlloon jóge na fi ba fële sëriñ son bi yéemu ci lool mu ne ko Cheikh Abdoul Ahad moo ko jox mu ne ko ah léegi kii man man de dama ne woon ndaw lu fi njëkk ñëw bàyyi ko ci Sëñ Abdou mooy ko tàpp bu mag bu fa njëkk ñëw na ma ko yónnee nag taw bi may defaree sëñ Buxaari ma far nga indi ko fi kon moom euh, sëñ Tuubaa daa daa daa daa daa lëkkale mbir ak fajug aajo lu ne ci xelam rek mu def ko bi nga xam ne mooy laaj laaj bi ma sëñ Abdou Samad laaj léegi mooy xam ngeen sëriñ bi comme ni ma ko waxee rek cofeel gi mu amoon ci man dama daay yónnee yàlla xam na ko ba ci poosum boobu yoon yónni na ci. na ca kees ga ci biir yónni ma ci mbubam ci biir néegam te sëñ Buxaari ma jur sax mosuma dugg ci néegam ngir waxal tawfeex ji ma am ci am ci man yërmande ko fonkel lool goo xam ne xaw ma fu mu yem bi fi sëñ Buxaari bàyyi ko nag ñi ko jege ñëpp da leen wax ne ba siiwul du ma sañoon dootuma ko tegati bët ndax yërmande ji ma am ci woon ndax nee na fu ma gisee doo koy fàttali sëñ Buxaari maa ngi fàttaliku. xisa yi la daa netti sëñ Tuubaa yu bëree bëri yoo xam ne booba gone nga lool. tey la doon bàyyi xel. waaye boo ci boo ci fàttaliku la ci gën a marqué ci xisa yooyu boo xam ne fàttaliku man ko baaxee murid yi. xisa daa bëri suñu choix bi moom li li si mën wax ci moom ci xisa dafa bëri ndax daanaka boo njëkk a jur rek boo am na ci boo xam daal moom. sama xel dana koy bàyyi xel lool ndax day wane jëmmi Sëñ Tuubaa ak ak ak ak meloon lim daa nett ne nit dafa ñëw yëkkati addiya ju bare bare jox ko sëñ bi sëñ bi nag ko xamee lu ko nit mas a jox rek lu mu bari ba daan tegal ne du bu dul alxuraan nee na taalibe bi xalaat cam xel ne sama addiya ji bare xanaa sëñ bi du gisut nee na fi ko xalaatee rek. sëñ bi wëlbati ko waat ne ko alam yaalam bi anna laaha yara loolu mooy xanaa xamoo ne yàlla gis na ko kooku nee na ke nee na ma jaaxle ma ne ah lii de kay mos gis kuy tontum xel koo xam ne loo xaar mu tontu la sëñ Tuubaa wëlbati waat ne ko allaa yaalu man xalaq kon suñ suñ soxna bu la meloon te sa bi may netti nag bi mu joxee ndigal ne bu ma soxla dootuma ko gisati wax ko ñu ko wër. yàlla def suñu kër yi bi ñu koy tabax ndeysaan ñëw bënt ma fa may ñëw ci moom di jël si ak ñaan ak mel na mbir moo ne bu baatine la maa ngi ko fekkee ci new gi new gi ne woon ci diggante ñaari terrasse yi terrasse bu bees bi ak bu mujj bee mujj waxtu yooroor une heure du ma ko fatte ñu bëgg a jul tisbaar ci laa ko fekk mu sol baxa ndeysaan boo gisee jëmm ji boo gonee laa lool waaye waaye da lay jox Sëriñ Tuubaa ni nga daa dégg Sëriñ rek sa xel day dem ci moom da koy dund sa digg moom bi fa accès ba wax ko yitte yëkkati addi jox ko sëñ bi daa sëgg nangu maa sëgg sëgg sëgg di ñaan di ñaan ba caag noonu mu daa xoolee ndeysaan loolu ñi xam Sëriñ Tuubaa di ko melal wax ne ne sëñ bi noonu la daa xoole day mel ne ku dul jàkkaarloo yow bi mu defee nii ba seen ma rek daal di gaaw su gàtt. loolu moom bu fi daa nekk sama sama moo koy nettali sa sama morom xëy di bëgg a sotti ndax benn yoon laa ko fa gisaat bisub ajjuma ci weeru baraxlu wi weeru baraxlu wala rajab lenn la ci rajab baraxlu laa ko gën a teg nag Serigne Cheikh moom suñu Buxaari ñëw fa ñu ànd ñu fekk ko ci saal tawaf bi muy waxtaan ak si seex ba di ko wax yéen jëm am ci bëgg ubbiwaat jàkka ji jàkka ji def ko mooy fi mu daa tuddee jàngukaay bi mu ne ko dama fa bëgg ubbiwaat de ndax daara ji de bu ma soñoon waxtu ne muy muy bëri bëri daanaka xam nga tax ma bëgg ko ubbiwaat ah? njàngum xam-xam bi laa bëgg mu gën a jolle. Mm-hmm. ne la ci jiitu nag seen jëm yii ñoom ñoom ñii ñoo tax ma bëgg ubbiwaat. jutu ko def sax far yàlla dogal ci koor ga mu bàyyi ko fi kon nag sëriñ bi moom day ñaan rek suñ borom fayal ñu ko dolli ay leeram te taa suñ ci barke woon te te ndax woor nañu ne la ko sëriñ Tuubaa di fay waxuma la taalibe sëriñ Tuubaa yi waaye jullit yëpp xaj nañ ci ndax lim li li lim def ci doomu aadama yi dundal ko ci ruux jëmbat ko ci ay jëmm mu nekk ay sénération sénération jooju tuyaaba kenn xamul fu mu toll. tam def ko nag ci ndigalu Sëriñ Tuubaa ci jamono ju jafe jamono ju xat joo xam ne dégg ngeen ma nettali ko ba tàyyi booba jafe woon na daanañ dem ba àgg ci di xëy ci kër gi duñu am duñ lekk waaye lépp mu di ko muñ ngir xam ne ndigalu Sëriñ yi moo gën lépp ci moom bis dégg mu nettali ko xëy na sax du di su war a wax ci rajo ndax lu lu lu biire la waaye rek ngeen ngeen xam ñoom ngeen xam daraja ji mu ak fi ko Sëriñ Tuubaa toll ak nii leen Sëriñ Tuubaa di wane boppam sëriñ bi neen bis booba kër gi metti na lool nee na mu dem ba ta ak jaaxle di ko bëgg a dugg nee na fi mu sëlmale fajar di wérde nga xam xaw naa leer sax nee na yor kurusam di wird nee na ba ci yàgg mu mel dafa xaw a gëmm lay nuru waaye gëmmut bu baax nee na mu gis sëriñ bi sëriñ Tuubaa ñëwal ko ne ko muñante sax ci lii ma la digal rek li nga bëgg lépp daan la fekk si fii nga toog mu ne bi koy gént nag bi mu ko koy gis nee na sëriñ bi da ko xeeñ laaj ko lu nee na bi mu xëyee suba nag dadaa tudd tur yi sa diw ak diw ak diw <laughs> nee na ko ci agsi ak Sayid Fall moom Sayid Fall takk naa ko ci nee na ko agsi ci néeg ba ne ko ah, sëñ bi sikk si xeeñ ci néeg bi de ah, neex na loo kañ nga ko am te sëñ bi naan boo xawma kañ laa gëj a gis sikk ci àdduna kon nga xam ne Sëñ Tuubaa dafa ñëwoon yooyu nag yim ci daan nettali am na ci yoo xam ne sax kenn ñemewu ko wax ndax euh, Sëriñ Tuubaa boo dell delloo ci mbindam yóbbu yi xam nga sëñ bi mbind yi dafa bari da ci am loo xam ne day tagg yonte mooy matu al matu wa thanaaw am ci yoo xam ne la waaye am ci yoo ay makaatib la makaatib yi nag mooy yi nga xam ne sëriñ bi lu mu romb wala lu mu dund diggam ak wala may gu suñu borom may lépp ci la koy def def ko ngir ndamu def ko ngir bëgg sax nit gis ko ndax wax neen lam yoo gis wala yoo gis ibra li kawniha asrar ilahiya kon ay secret la yoo xam diggam mo borom waaye am na ci yoo xam da ngay gis ne dégg mu fa mu koy ubbee mooy ku ko sàkk rek ab yëfar moo tax am na ci yoo xam ne di su ko mën a nett li ñëpp ndax ku ci sa ngëm-ngëm agut wala sa positif agut boo xawee sikk sàkk rek alku alkane dugg na la kon ngi jeexal foofu wax ji ndax loo gën a sor rek xaal bi di la gën a dugg ndax li nga xam dund ko loolu bokkute loo dégg bokkut ak lu ñu leen nettali li ñuy wax ci sëñ bi moom dañ ko dund ak moom dund koy ati at. moo ma def murid saadix waaw kon nag mënuñ ko fay <laughs> te ku lay def murid saadix ba nga gindi ci sëñ Tuubaa mënoo ko fay te loolu moo ko def ci man asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. ma jeexale ko rek sant. sëriñ Abdou Samad Mbacké ndax loolu itam wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis yàlla sax lim la defal day bëgg nga di ko wax wax naa ko waxati ko ndax suñ diggante bu waxee mu wax sax day daal di mel ne dañuy ragalante ginnaaw waaye du loolu bëgg ñëpp xam rek ni mu demee ndax ni ma ko leer la rek fi jaar dafa bari lool te lim ma sédd ci boppam itam mënu ko weesu. ndax jàpp naa ne maa ko gën a ñëpp te loolu dafa yàgg ndax bi ñu nekk suñu son bu àllarba alxames ajjuma nga xam mooy bi suñ du jàng këram lañ daa añ fa leen kon loolu yàgg na buñ ma sonn ñëwut it muy gaaw dimanche altine talaata àllarba it day jël añ bi di ñu ko yónnee loolu moom la dundee suñ digg moom te booba ña ngi ca daara ja mokkaluguñu alxuraan mësta mësta mësta soppi ko nag ca taxawaay boobu ba may sañ sama kere keroog ba may njëkk a tukki moo gunge ba aéroport loolaa ci gën tuuti nag Abdou Khare doom keroog bis bu mu juddoo 1994 maa ngi fàtte ab carnet bu ma yoroon mu mu bindu ko ci ca la ma ko bi mu matee mu noppi naa ci moom te loolu mooy de ci gën tuuti. sama waajur jigéen tudde na ko doom kon moom tudde na ma yeneen doom ci ay njabootam itam kon te loolu laa gën a tuuti ci nag ci dox suñu diggante ndax lu mas am ci lu baax man la ko gën di yéene ci boppam wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasan dund naa ko sama digg moom ci lu bari loo xam ne sax mu ko wax nag waaw kon moo tax dañ koy ñaanal baax yal ko yàlla gën a taxaw dëgëral ko ndax suñu wéttalu xol la ndax nit koo xam ne li moo koy wax léegi rek euh, fu fu fu fuñ ko gisee rek euh, mbégte mi ñu àndal te loolu tam cofeet gi gi mu am ci man ma am ko ci moom moo ko indi euh, muy loo xam ne sax mu ne su ko misaal waaye dañ koy ñaanal bu baax yàlla ko yàlla gën a dëgëral kattanal ko te li ma gis si moom di ko wax léegi nee naa ko ndax nit bu fekkee seen diggante nga bëgg ma ñeen fi gat du benn bés. waaye nag gis naa ne ñu gën a dund Sëñ Tuubaa di gën a bëgg Sëñ Tuubaa yoon wi it waxtu ne mu di ko gën a ñor loolu taw tawfeex la kon demee da Sëñ Tuubaa du ko nangul Sëñ Tuubaa nag bu la nangulee ndax loolu ci ñun ñëpp dama ko ci seetlu ndax da ngay dem ba ni ma ko waxoon ci njël bi nga dëkk ci néegum ñax ak dëkk ci étage ñoo yem ci wala lee sax la ko man de daanaka àgg naa foofu léegi dama leen ko wax dama naa leen. bu fekkee am naa lu may rëcc ci sama adduna de mooy sama kër yu rafet yi ma tabax bu tey doon démb dootuma ko te yàlla xam na ko lay lancé bu tey doon démb dootuma ko def ndax loolu nag day mel ne Sëriñ moo ñu dimbale luñ ko gën a jege rek adduna di ñu gën a soof luñ ko gën a jege si day mujj sëriñ bi rek ngay bëgg te sëriñ bi eh, xol bëgg sëriñ bëgg leen xëju ca sëriñ sëriñ bi daa du fecc saako waaye a jege bi rek. di gën a dëddu àdduna di di di di di gën a dëddu àdduna di di di ko di ko gën a bëgg moom mu mu lay gën a gën a lépp nag loolu la yàlla ñu ci dimbale ndax ñun ñëpp ay ndab lañ ay ndab lañ ndax ndab yoo xam ne euh, li suñ bi daa wax naan bu leen ma gërëm gërëm leen la labu bi bu leen ma xarab xarab leen labu bi ndax jëmu ji ne yàllaa ko sàkk ni latt ni ni ni ni labu bi di yettub këlam waaye nag ku ci ndab la sa ndab bu setut diisu ko duy kon nag ñun ñi nga xam ne Sëriñ Tuubaa dañoo waajal def ñu ay ndab yàlla nañu Sëriñ Tuubaa dimbale ba ndab yi ñu def bu bu ca dara taq yàlla nañu Sëriñ Tuubaa gën ba lépp loo xam ne ci suñ jëmm yi neexu ko ci moom yàlla na ko dindi ci ñun la bëgg suñ jëmm yi itam yàlla nañu ci dimbale ba loola itam ñu bañ koo génn bañ ko wàcc mu gàttanduñ ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf Cheikh Mouhamadul Bachir kon noo déggandoo kàddu yooyu mel na ne jarut commentaire bu yàgg sax xëy na rek déggees sa ci ne kon nun taalibe sëñ Tuubaa yëpp danoo war a roy ci njabootuk sëñ Tuubaa gi ci seen melokaan wi ci bëggante ak jàppante ngir sëriñ bi ak it fonk wëllëre lool seen diggante ni mu ko waxee ci sëñ Chouaïb boog ñi mbokkal sëriñ bi ak ñoom ñii. nga xam ne ñoo ñoo leen meññit ñu wéyal loolu kon loolu it noo ngi ñaan ñuy ñun ñi nga xam ne ñooy seenu njaboot sunu boroom dimbale ñu bañ ñu mën a wéyal loolu mu mel ne rek euh, loo xam ne dañ koo jële ci seen seeni waajur waaye mu doon loo xam ne leer goo xam ne la ci sëñ ba mag bi la la la tàmbale sëriñ bi waxoon na lu mel noonu ci ñett yoo xam ne nee na koo gis maa la ko gën a def néewuk fàtte am wëllëre bañ ko ma ñax kon mel na ne ñett yooyu yëpp it doon ngeen ko ci seen maam nuy ñaan ngeen ñaanal ñu it ñu jaar ca tànk yooyu rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa kon ñu bàyyi xel incha allah sëñ Saworu Kebe waxtaan wi nga xam ne fas na ko yéene amal.